wax ji nekku fa di guddeeg amul enquête ay enquête ay xaliss bi fi la jaar ak ki la ko jox ndax bimu la koy jox taguna lak amul lolu dama len ko yombalal yaw la man len mangi satch sàcc taxaw point lolu la man duma bayyi kuma denk 5 millions tay suba bu yeboo lendi demal nga def plainte parce que do encaissé bo meunta bayyi tay yalla tax do boo bàyyi te yàlla tax nga xol bu rëy laa yor man xol bu yaatu laa mën naa encaisser dix millions jox la ko wala ma jox la huit millions yi man xol bu rëy laa mais xaw ma xaw ma delloo loolu mooy sama problème. ci loolu arma ma doxal sa ndey ci suuf ngeen ngay dugg sama live dafa ba je kat sa ndey sa micro sa tata ndey waaw naka mu ndara sa ba yang ci jam ndey bele waaw yang ay ziar bu baax delo ziar naka mu wa xam do namon nan la de waaw maa ngi nii yaa ci jam bu baax alhamdulillah maa ngi nii kay da nga leer ya ma gën leer ler ma ya, gën ler leer ñëpp xam ne damaa leer nga allah kenn waxatu ko kaso bee ku fa nekk di nga leer ah tàng na ba pare kay lek tëdd naan rek nooy def ba doon leer waaw sa na la yàlla di fay ndax bu di di wax ngay rek. ah maanaam sama xol yàlla daf ma fay maanaam may kaso. non non comme ni nga fa yàggul yo xam nga xamone kasso ben fan sax da metti ben fan yoroo téléphone yoroo sarab ndey mëno dem fenn. loolu deug la mom mais amna ñoo xam yow li la ya, ma di fay yow xalaato dara naan ma li la ma di fay li yow yaa ma bañ. non non comprendre li ma wax de dama ni la soxol la la yalla fa amna ñoo xam tay ñu fa nek ay amna fa at ñi nga am fa ay. ki de yàlla sa ndey fele nga naan ma ni la la yalla fayé ki moy doomi xajj yow amul len lomay wax nan man yàlla la ilaha illa allah sayyidina muhammad rasulullah sallallahu Alaihi wasallam allah akbar ki mo bon man li lama yalla di fayé kaso ya to ci sarab nday ah ki mo domi xaj leer na mané awala aawa la ku toj seen cott ndey nan awé rek ñoo mëna genn xéet wax yu bon yi kii mooy doomi xaj ah